mbokki yeewi askan wi maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen wax ne taxawaay bi rafet na toogaay bi rafet na jekk na animation bi rëy na mobilisation bi ëpp na dayo limuy muy wane rekk mooy que ni Askan Wi su waaw ma ne Yewwi Askan Wi mooy réew mi dañu jóge siège u Déthié Fall di dox nànk ba egsi fii c'est toute la population de Dakar qui nous a accompagnés de la VDN aux Parcelles Assainies soxlawuñu woon di wax wala di joxe t-shirt wala di joxe paas li ñu askan wi wan mooy yeewi askan wi moo ko fi nekkal et ça c'est important moo tax suñu ñëwee tey fii suñu réew toll fi mu tollu ngeen may ma rekk am na léegi ku wax tagg ñépp gërëm ñépp sant ñépp muy suñu président Habib si di président la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi bala maa wax ci Habib si danaa na gërëm sant suñu maire bopp le maire de la ville de Dakar Barthélémy Toye Dias parce que xam naa li Barthélémy daj ci daje bii tey xam naa li mu ci def xam naa li mu ci dox xam naa li mu ci wax Barthélémy merci beaucoup tu june une pour nu tous ma wax ne Habib si dégg ngeen ni mu waxe nit ku tabe la nit ku teey la nit ku wóor la mais surtout nit ku am xam-xam la dafa xam nit xam état xam mbooloo yàgg jiite bi ñu taxawalee Yewwi Askan Wi léegi liggéey bi gën a metti ci liggéey yi moom moo ko doon def te musu ci feeñ donc ma bëgg tey ci rassemblement bii nga xam ni mooy bi jëkk ci biñ ko joxee conférence de leaders yéen ñëpp ngeen gërëm ko sant ko màggal ko parce que mérité na ko tàccu leen Habib si wax ko ni ko wóolu nañ ko doyloo nañ ko sant nañ ko te daañ ko jàppale ba mu yóbbu ñëpp victoire 25 février 2024 parce que nag njiglaay la euh, samay mbokki yeewi askan wi tey dangeen ñu gën a yeewi xam nga nu ngeen ñu yeewee depuis quelques mois dëkk bi dafa jax affaire bi teeng gaa yiñ ko séqal dañu tiit dañu ragal dañu jaaxle non dañu jaaxle dañu tiit teg ci xam nga suñu non ay ta weesu nañu lool xam nga suñu ragalul woon du jàpp xale yi di tëj du jàpp ndaw yi di tëj du jàpp jigéen ñi di tëj mais ñoom dañuy daw rek. dañuy daw parce que ñemewuñ ñu gis nga moo tax bi gars yi di bàkku keroog dama ni leen suba kenn du génn ci ñoom tey kan ngeen taseel tey kan moo génn ay tapet lañu. fii ñu jëm nag. fii ñu jëm li ngeen taxawoo nii ni ngeen jàppoo nii lii mooy solution xam nga waa ji jeexal na su fekkoon amoon xel day dem su demul nag dañ koy yóbbu non il faut que mu dem il faut que mu dem il faut que mu dem il faut que mu dem il faut que mu dem il faut que mu dem mais ñun ñoo koy yóbbu ci suñu taxawaay ñoo koy yóbbu ci suñu fulla ñoo koy yóbbu ci suñu fit ñoo koy yóbbu ci suñu dogu ak dëggu bu wóor moo tax ma bëgg a dalal seen xel ñii prédire ne Yewwi Askan Wi day toj dañuy nax seen bopp ñoom ñooy tas ñooy toj parce que li ñu boolee tax ay xol yu juboo la ay xel yu ànd la ay nit yu déggoo la ay bëgg-bëgg yu yam la ak yéene ak defar ak liggéey ngir jëmale Sénégal kanam moo ñu boole et c'est ce qui fait notre force et c'est ce qui fait que inchallah on réussira ma bëgg wax rek lenn il faut que le président Macky Sall le comprenne ñu nag moom la woon 2011 dama koy wax toujours na fàttaliku bi mu yoroo mer gàddoom bi ñu ànd no non daan na xeex si nag daan na ñëw di xeex daan ñëw di xeex non non daan ñëw di xeex nag mais dama ko bëgg mu xam ni li mu doon xeex ak ñi mu doon xeexal ñoo fi nekk tey fas yéene jàmmarloog moom nous n'accepterons jamais la troisième kandidatur surtout surtout su ko bëggee def nag tere yi ci des nu n'accepterons pas la troisième candidature nous n'accepterons pas que Macky Sall di tànnal boppam ay adversaire moo tax dama bëgg li ngeen di wax ngeen di ko jëfe loolu la olof yi wax gis nga gaañi warul am ñetteel ñett dañ koy tere ñetteeli victime ñetteeli candidat bu ñu bloqué ñetteelu ku ñu dog waru fee am jamais trois jamais trois jamais trois jamais trois Ousmane Sonko ne doit pas être la troisième victime de Macky Sall. dañu nit ki du nu mu waxee na mu jëfe dong la je vous invite à partir d'aujourd'hui ba ba ñuy déposer candidature yi jóg leen taxaw ñuy xeex di wax di dox pour que le 25 février alternance am fi maa ngi leen gërëm leen sant